ak murit buñ ko doon misaal ci jëmm ji jëmm ji xam ngeen ne du dara lu may ak kees koo xam ne ruux gi da koo dëkki bis bu demee ba faatu day am ruux boobu day génn rek jëmm ji buñ ko bàyyee ab diir mu dellu di suuf kees gii nag ci jëmm ji jëmmi ak murit mën nañu wax ne mooy sharia bu tegu ci alquran ak sunna si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi mbir mi mooy jëmmi ak murit waaye ruux gi ko dëkkee nag mooy ay tegge sekkereb ak murit nag mooy bëgg sëriñ bi ñett yooyu benn mën cee dem bàyyi sa morom jëmm ji mënta ñàkk ndax mooy tax ruux gi am dëkkuwaay boo xam ne dana mën a jëflante ak bi waaye jëmmi kese ji itam taxul ñuy wax bu bu ci ruux nekkul ruux googee nag mooy ci murit gi mooy ay teggin nga xam ne fuñ ko ñàkk ruuxu murit gi dem na jëmm fay des yoo xam ni eh, dafa dundul te dara ci dund bu jëlee nit nga xam ne itam nit ñi mën ñu jëflanteeg riix ruuxu kese nit ki bu amee teggin képp te amul jëmm jë muy sharia bu tegu ci alquran ak sunna si yonente bi ba tey kenn du mën a jëflanteeg moom ndax ruuxu kese adduna bii ñoom mënuñu jëflanteeg moom xanaa ko yàlla xottil baax kon loolu lu mat xam la mooy sariya bu tegu ci alquran nag sunna moom mënta ñàkk waaye ruuxu ak murit nag mooy ay teggin secret ak ak murit nag mooy bëgg sëriñ bi moom ay teggin solo si li la koy xamal mooy li ci sëriñ bi wax sëriñ bi àgg na ci wax ne diine jii nii bu doon ñetti xaaj ñaari xaaj yi ay teggin la nga xam ne ku ko ñàkk daa mel ne yow sa diine bu doon ñetti xaaj benn xaaj nga dese ci diine waaye ñaari xaaj yi diine yépp ñàkk nga ko wa nataqu bi annahu kaada yakun sulusay diini fa bi daana wax ne gën ci taar yi waajtaay gën ci waajtaay yi mu ay teggin am na fa wax ne wal adabul mardiyu afdalu jamaan fasani duunahu tamathala dalal nee na loo mën a am boo dajale woon lépp diine te amooy teggin cig réer génn goo cig taar bi gën nag wàccaay mooy teggin yi ñu gërëm sëñ bi daana wax sax ne jege yàlla ay teggin a koy maye ndax yàlla ci boppam sëñ bi dana wax ne ay teggin moo koy maye jaamu yàlla yii moo lay may nga tàbbi àjjana waaye yàlla nag boo ko bëggee am أي تجل كب مولوكو مانا مي وعدم الأدب قائل إلى بعد من الله القريب ذي الإله وزين وحنكو وحنكو تي معنى يبري بري بري أبو لأنه به إلى الرحمن يسير عبد وإلى الجنان فكل من بغيره رام الوصول لحضرة الله فغمر لا نبيل معنى منو أغتي يالله منو دمتي يالله منو أمن تغي يالله سيديغر يالله من كيلو أي تغي amna fu wax sax ne nit yàlla yi ngeen gis muy awliya way la len may seen digg ak seen borom la tax teggin la du julli yu bari du koor gu bari du jaamu yàlla gu bari teggin sàmm teggin la ci lépp sa digg ak sa borom ak sa digante ak mbindeef yi mooy li wax ne wa sahha an al awliya al wasilin ما وصلوا إلى إله العالمين بكثرة الأعمال كالصلاة وحج بيت الله والزكاة بل وصلوا إليه بالرعاية لجملة الآداب بالعناية وبالمراعاة لها ساد الورى لا بإدامة الجدال والمراء نعم جف يباحي جلّيك وراء للو أم صلى الله تموي تخيط نعمنا تابي أجن ألك waye lay may yalla deug deug neena moy sammu teggel sa digënté ak sa borom ak sa digënté euh sëñ bi daana wax ne mënoo koo dund topp sunu yonent bi yi ñuy wax nga xam ne moom mooy maye lu waay di am ci diine la la ko may mooy topp sunu yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu sëñ bi dana wax ne mënoo ci am dara moom ci sunu yonent bi ak topp ko ak jariñoo ci lu dul làmboo ay teggin am na fa wax ne id kullu man bi gayrihi raama tibaa fa innahu yuxramu fawzan wa intifaa boo amuli teggin doo jariñu mukk ci top diine wala dundu diine wala top sunu sunu yonent sallallahu alaihi wasallam do jar ñu mukk motax tax Sëñ Tuubaa da wax ne ko mi gën ci kaw suuf nga xane moy capital bi gën ci capital yi neena moy lambo ay teggin wa huwa fi daarayni khayru kanzi wa khayru ma tazza bihi du izzi li annahu munawwirul janaani kama yuqarribu ilal jinaani Sëñ Tuubaa daa wax ne teggin mooy koom mi gën ci koom yi ci àdduna ak alaxira nag waaye da cee teg lu am solo mooy xol bu leer li koy maye leeru xol li koy maye dëgg dëgg teggin la koo gis amul yi teggin du mën a nekk mukk wëli yu yàlla ndax xolam du leer te leeru xol googu yi mooy man mooy mën a tax sa digg ak sa borom la tax ma suñ borom mbooleen ñi dund ci kaw suuf da a jàppe ñu faatu ba keroog leerug yàlla googu di tàbbi sa xol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoom nit ñi mu daan jëflanteel gis nga dañ daa dund di def nii ñuy def di lekk ka naan dem ca marché ba ka dikk te teewut suñu borom ne ñii ñu faatu lañ innaka la tusmiu l mawta am na fu wax sax ne man fil xubuur mooy ña ngi ci seen biiri bàmmeel ñi dund nag mooy aw man kaana mayitan fa axyaynaahu wa jaalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas leer la goo xam ne suñu borom moo koy sànni ci seen xol ñu gën a nag nekk way dund dund googee nag sëñ bi dala wax ne leer googee la koy maye mooy làmboo teggin yannahu mu nawwirul janaan yi teggin képp moo mën a leeral xol nit ki dana nekk ci jaamu yàlla fekk xolam day gën di lëndëm ndax ay sikk moo koy fees te suñ borom du bokk te lépp loo ko defal bu amee yenn sikk yi mën na ko bañ a nangu teggin nag faw moom moog yàlla yàllaay tax ndax daa ànd ak woyoflu daa ànd ak ñàkk gis sa bopp moo tax bi daana wax lu am solo daana wax ne li fi gën barke daal ne barke moy lo xam lum lu rafetal ko fu fekk lu néew baril ko fu fekk dégg nga néew daraja ak tolluwaay da koy yokk jox ko daraja ba ñëpp gis taar ba ak njariñ la fa ne nee na barke boobu yi nag moo mat a sakk ci lépp waaye bunt bi benn la mooy teggin teggin képp mooy maye barke sëñ bi daana àgg ci wax ne adduna dara mënu fee rafet dara mënu fee taaru dara mënu fee jag ci dul ay teggin fa inna al adaba huwa alladi laa yaxsunu shay'un duunahu sëriñ nag ab sëriñ nag dafa am teggin yoo xam ne bokkut yooyu yépp moom ndax sëriñ mooy buntu jariñu ci yàlla ci boo ko xamee moo tax suñu borom ci boppam moo jàngal saxaaba yi ni ñuy nekkee ko sëriñ ndax moo wax ci alxuraan ni saxaaba yi ne leen laa tajcalu duaa ar-rasuli baynakum ka duaai baadikum baada bu leen ko woowe ni ngeen di woowe seen morom foofu lay teggin tàmbale kenn suñ te woowee yonante bi wala mboolem ñi ko jëmmal ci sëriñ si na nga woowee sa morom sàllalu gii xew léegi nga xam ne moom da ngay tudd kilifa goo xam ne bu mag mën a jaar ci tur wa képp te doo ca teg dara doo ne sëriñ sax loolu dëppwut ak ay teggin ndax yonante bi sax gis nga yi jar borom di ko di leen ko aaye ñoom bu ko kenn ni ngay sa morom بوكو كين جيتو سي دارا ايتام لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اك سي وقت صحابه نلن بو نين توغي في يونتبي بو لن ييكتي سين كادو موي غنا كاوي كادوم لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون manam bo toge fi kanam yoonte bi sa كادو gëna fiyete kaw kaddom sun borom do wax ne lolu du bakkar nga sa jëf ci boobu mooy yàqu loo ma si jëf rek day yàqu an taxbata amalukum mooy si jëf yëpp ay yàqu te doo jariñooti maanaam mënoon na ne da nga ci am bàkkaar wala lu xaraam la wala lii waaye lii weesu na ko ñàkkee teggin waaye yàlla ak nitu yàlla rawatina sab sëriñ loolu day yàq jëf mu teg ci nag ne inna alladina yagudduuna aswaatahum inda rasulillahi ulaika alladina imtaxana allahu qulubahum li taqwa ñi am ragal yàlla dëgg dëgg dëgg mooy ñi nga xam ne dañuy demm seenu gis di demm seeni kaddu di gën a suufal seen seeni kaddu fi fi kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam àgg ci wax sax ne ñi nga xam ne ñoo koy jooru moom fële di ko jooru di jaar ci turam ñoo ñu dañoo amutum xel sax nag aslan inna alladina yunaaduunaka min waraai alxujuraati aktharuhum la yaqiluuna moo tax kon teggin lu am solo la lu mat a bàyyi xel la ku mas jariñu ci la jariñoo gaa ñu baax ñëpp mooy seen yoon wañ jaar ba am yàlla te yàlla boo ko amul suñ tubaab daa ne ñàkk nga lépp boo ko ñàkkee nag amutoo dara ci kaw suuf boo ko amee itam dara rëwatu la waaw moo tax sëriñ bi daa ko digle ci bërëb yu bare bare bare digal ko murid yi usika bil aadaabi fi l wa jumlati afaali wal axwaali dama leen digal teggin ngeen di ko jëfandikoo ci seen lépp ci seeni wax ak seen i jëf ak seen xaal ñett yi benn bokku ci nit ki dana am teggin waaye du feeñ ci waxam nit ki dana am wax waaye du am teggini jëf nit dana am ñaar yooyu yëpp nag te du am teggini xaal mooy mooy comportement ak meloom tegginu mag ñi loolu rek ci lañ rawee kuñ raw teggin képp dinaay nettali loo xam ni nettali naa ko ba tey xam na lu xaw a xoromu la ni waaye day nettali bu am solo ci mbelli waxi wolof yi ci la bokk mooy ki ñu wax ne sëñ bi da ko laaj li xew mu di ko leeral xew-xew bu am ca ca dëkk ba di ko wax ne ko wax sëñ bi ne ko bu ma ci amee ndigal dinaa ko nettali leen sëñ bi ne ko bismillah mu ne ko jaamub yàlla la woon bu xeeboon wërsëgam ba tax ko àgg ci wërsëgu jàmbur doonte sàkku ndol leen te amu ca ndigal borom wërsëg ba fekk ko fa ñu ànd ñoom ñaar jiit le di yok seen jego jéego neen tuut tànk yowoon ya ci pénc ma di leen yokkale jéego yi nga xam ne nett xew-xew ba xew-xew bi jeex te dara ci tooñ ci dara ci tooñ nekku ci mag ñi te loolu dëppoo naag waxi mag ña moom ne ab sëriñ jubbanti ko léegi la xew am na ko masanet li ne ma mag moo xam ne ca kër la benn bis neen dañuy julli tisbaar sëriñ bi am ñaari rakka daal di sëlmal ñoom sëlmale ñëpp ne teg mu laaj waaw julli gi mat na nee na kooku nekkoo kenn ci mag ñi ne mat na sëkk day mbakk <laughs> ndax day am nga ñaari rakka yu mat sëkk doog a sëlmal xam nga kooku sëñ bi daat ne xam <laughs> daat ne xam moom te lépp ci tegginu na maanaam teggin yooyu nag moom moo fi waay mooy waaj génn ci murit te bis bu ci génnee ak murit moom des koy des koy des koy des koy des koy dañuy xam ne moom jeex na moom ndax teggin moo ak murit te daa war a feeñ ci waxi nit ki ak ci jëfam ak ci xaalam muy ay mel melow zahiram wi ko ñëpp gisee buñ seetloo sëriñ bi ñëm njëkk a yar ci teggin yooyu la leen yar murid yi taar bi nga xam ne moom la moom la ñëpp xame woon tax ñëpp xemeem ak murid mooy teggin yooyu njëlbeen ko lu ne jànkonte nañoo moom lu ne gis nañ ko tooñ gu ne tooñ nañ leen ko gis nga sëñ Aliou Diouf Diouf Lambaay mu baax mi nga tudd ak sëñ Momar Maane ak sëñ Babacar Cargaan gis nga lañ daj ca Bawol ak buuru Bawol ba waaye ànd ak loolu lépp seeni teggi moo xëcc lépp gis nga gox boobee fay tey boo fa demee ñetti pénc yi ñoom ñëpp la fa buur ba amoon lépp ñoom yàlla jox na leen ko tey ñoom ñooñu te booba gis nga ñoom yëpp murid yëpp am na jamono xam nga ñu lakk këri murid yi ci gox yu bari ca bawal ak feneen ak feneen nangu seeni alal boobu tubaab bi dañoo bàyyee chef de canton yi ñu jëfandiku ci ñoom waaye ba ñëwee ci sëñ bi lam leen wax mooy yéen kat dama leen a woo ci yàlla rek ngeen wuy si ma ba tax na li ma ci xam mooy ngeen muñ te roy ca saxaaba ya ndax saxaaba yi kat ñooy seen i bàyyi ci diine te da dajoon nañ loo xam ne yéen du ngeen ko dajati mukk kon na képp teggin yooyu teggini biir yooyu fi ne saxaaba yi sax mën nañ ne lool yi moo doon seen seen sirru ci loolu lañ nekkoon saxaaba yi noonu lañ àndewoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ sayyidna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu yonente bi ci mujjëm bi mu nekkee ci wéradi gi dafa wax ne na Aboubacar jiite Seydina Aboubacar ba muy jiite dañoo am julli goo xam ne dañoo julli ba mu yàgg Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam fekk xaw naa tane tàmbalee génn génn ngir fekke julli si ci jàkka ji coow di maanaam yëngu bi bari Aboubacar ba mu ko yëgee ci la xam ne yonente bi génn na mu daal di arrière nu mu wute jiite yonente bi sallallahu alayhi wa sallam puus ko ne ko jàllal jiite mu lank dégg nga maanaam dellu ginnaaw Seydina Muhammad jiite Seydina Aboubacar di roy ci ma mbooloo mi topp ci Seydina Ali Seydina Aboubacar bañ noppee Seydina Muhammad da ko laaj waaw lu teewoon nga wëy jiite julli ni ma la ko digale mu ne ko man dey doomi abu quxaafata képp laa maa kaana libni abi quxaafata an yataqaddama ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xalaatuma jiite la moom loolu moom sama xel xalaatu ko ndax moo tax teggin léeg dañuy wax ne moo jiitu ndigal ne Seydina Ali ca xaswatu ca Xudaybiya ba si signé accord yi Seydina Muhammad dañoo bind Muhammad rasulullahi yéefar yi ne leen buñ gëmoon ne rasulullahi la duñ fi ñëw di bindante accord kon rasulullahi nañ ko dindi nañ bind Muhammad képp Seydina Muhammad wax Seydina Ali ne ko faral rasulullahi ji Seydina Ali ne ko rasulullahi du ma ko far mukk loolu sama xel xalaatu ko moom baat boobu na xam ne teggin kon léeg-léeg mooy jiitu jëfandikoo teggin sëñ bi am na mën a laa may dara waaye lam lay may sa teggin du du la ko du may nga nga jëfandikoo moo tax teggin daal mooy moo ak murit mën nañ ne buntub jariñu ci sëñ Tuubaa ay teggin képp nga ci mën a jariñoo amul leneen teggin moom daa war a feeñ ci lépp sëñ bi nag daana wax ñaari xeeti teggin mooy teggin yi yi ak yi nëbbu taaddabu fi alanin wa sirri ma al ali wa xalqihi bil birri teggin yi nëbbu mooy teggin sa digg sa borom teggin yi feeñ mooy sa diggante ak say morom loolu xam naa buñ ci duggoon day gën a gudd waaye ci tënk rek teggin yi dox sa digg ak sa borom yooyu yu mat a xam la ndax sëriñ bi kat dafa am fu mu wax ne teggin yi dox sa digg ak sa borom boo ko sëmmut dañ lay dàq ci buntu suñu borom mën ngaa nekk ab jullit mën ngaa tàbbi àjjana sax ëllëg waaye yàlla moom dara doo ko am ci moom ndax buntu ba fa lañ leen di dàqe amma alladi batana minhu fa mata asatahu tutrat wa tuxjab ya fata wa tardu an baabi lilahi walxijab ashaddu min kulli garaamin wa adam suñu tubaab daa ne mbugal mi gën a metti mooy mbugalum ñu tëj buntu yàlla fi sa kanam mbugalum sori yàlla mbugalum doxale kiiraay sa digg sa borom nee na mooy mbugal mi gën a metti ci mbugal yi ëllëg yowmal xiyaam gaa ñu baax ni am na ñoo xam ne dañu tàbbi àjjana waaye du àjjana du saf ci ñoom dara ndax li fii gisewuñu seen borom gisewuñu ak seen borom tabaraka wa taala kenn ci nitu yàlla yi bi mu demee bay faatu suñu borom da ko wan xéewali àjjana yaag yooyu yëpp ba mu gis ko nag mu daal di jooy wàcc loxoom ne ko man day bu dee li ma doon def lépp lii nga ma ci nar a day man nga xam ne sànq sama dund faqad dayyaatu amaari ayyaami waaw ne ko man la taxoon may def la ma doon def mooy gis la yow borom jaam tax sori ak sori buntam ba loolu moom mooy mbugal mi gën metti ci mbugal yi Sëñ Tuubaa nag da wax ne teggin yi nga dox sa sa borom day tax ñu tëj buntub yàlla fi sa kanam day tax ñu doxale kiiraay sa digg sa borom yàlla ñu yàlla musal ci loolu loolu nag fi ne boo ko seetloo ci gàttal boo ko bay wax lam ca jiitul mooy lam ca jiital mooy suñu borom dogal dara nga am ci benn xalaat wala nga koy naqarlu xam nga loolu yombut maanaam suñu borom dogal dara nga ne layta ak a neexoon mbir mi demee nii wala mbir mi kat nangam la waroon demee wala budul ko nag nangam wala bok bokk na ci teggin yooyu nga war a sa digg sa borom nga yu jafe la sëñ bi wax na ne bokk na ca dii nga daray sun borom wala dii nga wëli yu yàlla wala gaa yu baax yi wala amuk tan, fi kanam tànnuk sa borom tànn xol wala geestu ak xemmem ak ragal ak jàmbat mbindeef bañ bañ ko def yi ci sa borom taala ak geestu keneen ku yàlla rek ak di def yi yomb rek di ko topp di ko euh, xool di jëfandikoo maanaam yi yomb bàyyi yàq yi nga xam ne moo gën a jafe yooyu waroo koo topp yombal yi ak itam di jëfandikoo xéewali yàlla yi te te te yéene woo ci ak jaamu yàlla ak itam xéewali yàlla yi ak alal ji nga di ko rëbbu di ko wut ci anam goo xam ne dëpp wut ak gi ko yàlla diglee ak sax bëccëg bi sax ngay nelaw te yéene woo cee bëgg a mën a taxawee guddi gi yooyu yëpp dafa ne ci teggin yi yu biir yi la nga xam ne moom dalay xañ dégg nga sa digg sa borom ratax mbaa mu neex yooyu kon te yooyu boo gisee mooy jafe moo tax sàmm teggin sa digg sa borom mooy li gën a jafe di sa diggante sa moroom nag moom sëñ bi wax na ko moom lu bare bare la la ca gën a fës mën na ko tënk ci jikko ju rafet rek ak am kersa sa digg ak nit ñi ak sa digg ak sa borom ak itam bañ jàpp ne yaa gën kenn bul jàpp sax ne am nga xàq ci kaw kenn cir bu la waay jox jàppal ne dala ko gënee wa an tara annaka lasta mustaxiq shay'an min at-ta'zim bul jàpp ne yaayoo nga benn cir nee na borom bi teggi noonu lay mel day jàpp ne moom moo war a joxe cër waaye du ko séntu ci kenn sëñ bi daane wax itam ne teggin li ci gën a gaaw mooy koo gis noo bëgg nit ñi def la ni rek na nga na leen def noona moytu am po moytu yar sa jëmm loolu ci teggin la bokk bokk na ci teggin itam ci li sëñ bi wax mooy maanaam bul wax kenn ne ko waxoo dëgg wala waxoo li am wala benn baat boo xam ne dana ko naqari xam nga loolu yombut nee na tam dafa bokk ci teggin teggin xeet yu bare bari la teggini nuyoo teggini xéewlu teggini euh, naan yëpp am na ay teggin yu ñu ci jàngale ak nelaw ak yi ni waaye teggin yi nga xam ne moom la murit bi war a war a làmboo loolu moom la ci jiitu yërmande la sa digg ak mboolem ñi nga xam ne yaa leen féete mag ak weg képp koo xam ne moo la féete mag ak it képp koo xam ne yéen a tolloo nga def ko ni sa morom loolu gaañe lañ amoon lépp moo leen ko mayoon moytoo gis sikk suñ tubaab dara wax ne sikk boo ko dee gis na doon sa sikki bopp na la doon sëkk wala sikki keneen murit it day mën a jéggale ak jéllale ñaar yooyu na ko suñ bi waxoon kal ardi yurma fawqaha kullu qabih wala turi min batniha illa malih day mel ni am ji day amee jikkoy suuf lu waay buub mën na ko ko xëpp waaye boo gasee lu baax rek ngay dajal murid day amee jikkoy ab taw loolu la bi daa wax nga xam ne bu dee taw du xool kër yi baax ak yi bon ak ñi jub ak ñi jubadeeg ñi gëm yàlla ñi ko gëmul ñépp lay tawal xéwalug murid di noonu lay doxee kon loola sëñ bi ci gàttal rek mën nañ ne moo doon waxtaan wi ci teggin di loo xam ni moom moom moom du jeex te moo di ak murit te sëñ bi daana wax ne juróom benn mënees na ko ci tënk teggin yépp xifdun li xurmatin uluwu himmati wa xusnu xidmatin wa shukru nicmati xaamisuha nufuudu lil azima fa man yuraaciha yanal ganima mooy sàmm worma ak yitte kawe mooy positif ak xidma te di def ci anam ga gën a jekk te gën a rafet xidmal ñëpp rek mooy koo mën jariñ nga jariñ ko te njariñ la doo ca séentu ak pay mbaa ak cant mbaa ko ko xam da koy def ngir yàlla képp ak sant xéewali yàlla yi ak ak dogu nag mooy nit ki murit du doon ku ñàkk fulla suñ tuba wax na ni daana wax ngeen ngeen boole ñaar am fulla ak fayda waaye firi woon ko fulla mooy lépp loo yaa nga ca fu ca lu baax yem rek nga yem foofe fayda nag mooy lépp loo xam ni daa nga ko def bu waxtu wa jotee loo mën a jàpp nga bàyyi ko ba def loolee bu ma bu ma jawalewut ñaari maanaa yi loolu kon mooy gàttaluk dégg nga ay teggin yàlla yàlla def ñu bokk ca ña koy làmboo ci darje sëriñ bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu